que ñëpp xam na ni que loolu baaxul te xam nañ ni que borom kër gi fii ci Thiénaba moom loolu daf ko mos a bañ loolu xam nañ ko mas nañ fi ñëw une fois mooy bi nga xamee ni dañ doon wut euh, loi parce que xam nga réew aussi dafa am nu muy tëdd am na loo xam ne soo ko bëggee soo ko bëggee xeex da nga ko war a jaarale ci yoon euh, parce dafa mel ne tey jii boo jàppee sàcc amoo doole dóor ko danga nga koy jàpp yóbbu ko ci yoon mu mu téye ko àtte ko euh, mënoo gis mënoo gis aussi nit muy dox di toog ci mber mi wala muy toog foo xam ne wala fa toog nga ñëw rek attaqué ko su boobaa bu ngeen demee sax ci yoon xëy na dana am loo ci fekk moo tax ñun bi ñu koy def ñëwoon nañ fii ci kër gi euh, loi bi ñu doon wut parce que nekkul loi bu yomb parce que ñiy defal cigarette ci àddina bi dañu am doole boo xam ni état yi sax ñoom ñoo leen ëpp doole ñoo leen ëpp ñoo leen ëpp moyen te ñoom fépp foo xam ne dañ fay defar ay loi pour jéem a organiser loolu ñoom dañ ciy def seen doole ak seen alal pour que loolu du ci am loolu moo tax pendant plus de quinze ans ñun ñu ñu ci doon xeex saa yu defaree loi rek ñoom yàqu saa yu ñu defaree loi ñoom yàqu ba nga xam ni que en 2012 mooy bii bi ab bi Abdoulaye Wade dem projet de loi bi fii la ko bàyyi woon fekk na ñu xeex ci ba ba sol mais bon bi muy dem fii la ko bàyyi àggal wul ko mais bi Macky Sall ñëwee li li yëf yi commencé changer parce que madame Marie Aw Coll Seck mooy ministre la santé moom bi mu ñëwee projet de loi bi buñ dossier ñu ko transmettre def ci boppam bi mu gisee projet de loi bi. mu ni moom projet de loi bi du ci laal dara ni mu ko ni mu ko fekkee ci kaw bureau noonu la koy jële doom dem yóbbul ko président pour mu président wax ko lan la ci xalaat bi mu jëlee projet de loi bi mu yóbbu ko ci président président def ko xool ni ko projet de loi bi duma ci yokk dara duma ci wàññi dara lu dul su fekkee ne sax am na lu ñu ciy def mooy war nañ ko xoolaat ba xam su fekkee am na lu ci manqué ñu dolli ko ci danaa ko jàllale conseil des ministres danaa ko yóbbu assemblée nationale député yu voté xam nga loolu déjà loolu moom la ñuy wooyee loolu moom mooy volonté politique parce que réew su fekkee ne volonté politique amul pour ñu mën a xeefe mel ni day xaw jafe parce que ñëpp xam na ni cigarette amul njëriñ dafay yàq dafay dafay dafay indi ay difficultés dans un pays tey jii ci àddina bi yëpp. cigarette dana rey lu mat 6 millions de personnes chaque année 6 millions xam nga loolu amul benn feebar ci àddina bi buy rey loolu ci at mu nekk mm. amul boo boolee li nga xam ni paludisme daf koy rey nga boole li sida di rey nga boole li accident de la route di rey nga boole ñi suicide bi moo ñuy xaru nga boole leen ci benn at bi ñu loolu lépp li ma rey soo cigarette dong moom kot dana rey lu ëpp loolu 6 millions de personnes amul euh, feebar bu koy rey ci àddina bi cigarette dong la ba noppi cigarette dafa am yenn conséquence conséquence yi mooy cigarette non seulement dafay dafay indi ay feebar ñëpp xam na ne que feebar bi nga xam ne moom la ci nit ñi gën a xam mooy feebar boobu ñu woowee cancer te cancer ñëpp xam na ni ko faj ko du ma ni yomb na mais en tout cas jafe na trop daal parce que tey jii ci benn kër su fa nit amee cancer suñ koy jéem a faj waa kër gi yëpp daañu cotiser li ñu am ñu def ko ci te sax wóorul ni dana mën a faju te ñëpp xam na ni que cause bi nga xam ne dafay dafay favoriser cancer cigarette moom moo nekk ci kanam. loolu rek war na tax ñu gën ci farlu gën ci taxaw pour que euh, famille yi ñu gën leen ñaax gën leen expliquer gën leen wax ni que cigarette war ñu ko jege war ñu ko laal te ñuy jaay cigarette xam nañ ni que li ñuy def baaxul ñoom xam nañ ko de dañ koy wax dañ koy bind ci seen ay rapport te tey li ci gën a grave mooy ñii euh, ñi euh, ñiy jaay cigarette ñoom mag ñi mag ñi soxla woon leen xale yi rek la ñu soxla parce que ñooy seen but pour jàpp ay ay jàmm comme ni leen di wooye waaw parce que cigare li ci nit ñi war xam mooy que cigare drogue la drogue la boo xam ne dañ ko légaliser mais drogue la parce que loo xam ne yow da soo ko commencé soo ko bëggee bàyyi daf lay jafe soo ci bëggee génn daf lay jafe mm-hmm. kooku du la loo xam ne dafa dafa dafa yomb dafa am lu nekk ci biir parce que ñoom liñ ciy def ay produits yi ñu ciy def moo tax yow boo commencé toog dootu mën a bàyyi loolu rek war na nekk loo xam ni war na gën a yenn ñi ba nga xam ni war na ñoo tere ñuy toog ci réew mu mel ne Sénégal parce que dafay ndóolloo réew aussi waaw dafay ndóolloo réew tey jii euh, ñoom ñoom li ñuy bàkkoo mooy ñi jaay sigaret ñu ni ñoom chaque année daañu jox état du Sénégal 34 milliards ñoom ñoom loolu la ñuy jox état du Sénégal année bu nekk ak mu nekk daal ñu jox Sénégal 34 milliards mais réew aussi boo koy jiite dafa am loo war a jiital mooy intérêt population yi waaw euh, population yi mooy nga fekk lu mel ni cigarette nga ni danaa ko xool danaa ci bàyyi sax ñu def ci loi pour mën ko xeex loolu loolu déjà important loolu rek déjà ñun war nañ ko sant président parce que moom loolu moo ñu ko defal moo ko defal Sénégal defaluñu ko sax Sénégal la ko defal famille yëpp la ko defal 34 euh, milliards yooyu ñu ni industrie du tabac daf koy verse Sénégal ak mu nekk mais nit ñi dañuy war di réfléchir ci gannaaw dañ la fi bàyyi feebar yoo xam ni da ko faj à hauteur de cent milliards wala de cent milliards donc si tu fais le rapport da ngay xam ni cigarette amul benn intérêt. état bi du ci gagné population yi du ci gagné kenn moo ciy gagné mooy ki nga xam ne mooy def sigaar mooy defal sigaar di ko jaar ci suñu réew yi te tey li gën a garaaw ci Sénégal mooy permettre nañu benn industrie bu tudd film Maurice mu implanté wu Sénégal te à partir du Sénégal la ñuy joxe yeneen réew yi sax sigaar ay réew yu ñu ko <clears throat> loolu nekk loo xam ne aussi euh, lu lu ñu war a seetaan parce que booy defal usine bu mel ne. Euh, buy defar sigaret fi nga koy implanté da nga ko war a xool ñoom dañoo dem ba buntu Pikine booy dugg Pikine usine bi nii la nekk ñu samp ko non seulement dafay dafay dafay am ay nuisances yu muy créé parce que ñoom ay produits chimiques la ñuy liggéey donc ñi dëkk ci zone boobu déjà dañuy am problème te loolu rek war na tax aussi ñoom ñu wax dans quelles conditions aussi na leen permettre ñu ñu ñu implanté wu foofu si crois que réew aussi boo koy boo koy jiite dafa dafa war a am loo xam ne da nga ko war di xalaat c'est pas parce que nit ki ñëw na jox na la xaalis wala jox na la alal wala en tout cas xamuñu ni mu def ak yow ba nga mën ko permettre mu implanté wu ci sa dëkk di def lu ko neex loolu euh, euh, euh, régime bi fi jógee nag moo ko fi def du Macky Sall régime bi fi nekkoon moo permettre. industrie boobu mu implanté wu fii te loolu yaakaar naa ni ku bëgg sa réew jag su ku bëgg sa euh, waa réew am wér-gi-yaram loolu waroo ko woon permettre ngir loolu nag li tax mu am mooy euh, dafa am lu ñuy wooye convention cadre de lutte anti-tabac boo xam ni organisation mondiale de la santé moom moo ko defal pour xeex cigarette ci àddina bi yëpp bi ñu ko defee état yëpp dañ ko dañ ko signé Sénégal signé ko mais euh, réewu euh, Europe yi réew yi am doole ñoom dañ ko signé comme ni Sénégal signé mais ñoom dañ koy appliqué li nekk ci biir clause yi conditions yi nekk ci biir loi euh, convention bi ñoom dañ koy appliqué lu tax dëkk bu leen bu mel ne France tey ku fa feebar. ak nu mu mënti demee ñoom dañ lay faj dañ lay faj nga am nga bañ a am boo feebaree li ñuy dikk def mooy nañ ko faj ba noppi ñu seet ndax am na wala amul ñoom xam na ni feebar yi nga xam ne cigarette daf koy joxe faj ko dafa jafe dañ ciy def ay moyen yu bëree bëree ñu xam nañ ko tubaab bi xam nañ ko ba nga xam ni tey France dafa jafe sax pour nga tof mënatoo tof ci restaurant yi mënatoo tof en tout cas daal mënatoo tof fu la neex. mënatoo toog fenn presque même avion yi sax léegi dañuy tere ku ci toog parce que ñoom loolu dañ koy appliquer mais sunu réew yu mel ni Sénégal par fii fu nekk la nit di toxi te xam na ni que loolu ñuy wooyee tabagisme passif mooy man may tox nekk ak côté koo xam ni tuxul di may tox moom def ci jël feebar yi mu sigaar di joxe te moom tuxul daf ci daf mën na ko am tey ci àddina bi 600000 personnes la ñoo xam ne tuxuñu dañoo nekk ak ñuy tux rek 600000 personnes la cigarette di rey ci ñoo xam ne tuxuñu nekk ak ñuy tux rek xam nga loolu nekk na loo xam ni lu du doy waar la te Sénégal loolu il faut ñu ci nit ñi gis benn néeg kenn fay tux ña fa nekk ñeneen ñi def tuxuñu mais moom bu tuxee. bu tuxee daf leen di tuxoo daf leen di feebar yi moom bi mu mën a am ci moom mi toog ñi mu nekkal tu tuxu nooñu dañ koy am parce que souvent da ngay gis koo xam ne dafay nekk ak soxnaam di tux ci biir néeg bi ñu xëy suba so soxna si feebar ñu yóbbu ko hôpital médecin boo ko seetee def naan ko est-ce que da ngay tux mun ko mën tuxuma te fekk na moom tuxul jëkkëram mooy tux di ko xër ba mu moom mu am feebar tuxkat xam nga loolu rek déjà nekk na lu compliqué ba noppi cigarette dafay dafay ndóolloo famille dafay indi pauvreté pauvreté bi ni mu ko mën a indee mooy benn kër su fa ñetti nit di dox ku nekk di jënd cigarette paquet cigarette disons cinq cent francs ñetti nit par jour ku nekk di ñoom ñuy dépenser mille cinq cent francs par jour 30 jours yi boo ko dajalee loolu ñoo di dito am na lu mu mënoon faj ci kër mënoon na fay courant mënoon na fay ndox mënoon na jënd garab xale yi jàng école sa xëy na mën na leen fayal du jàngi mais lépp dañ koy taal rek bu dem donc dafay nekk loo xam ni conséquences yi dafa bëri ba nga xam ni. ñun xam nañ ni que euh, sëriñ bi euh, sos dëkk bi loolu moom daf ko doon tere waaw loolu ñun xam nañ ko moo tax ñun ñu jug tey dañuy dañuy ñëw parce que comme yàlla dimbali nañu ba bi ñuy wut loi dañ ñëwoon ba fii wax ko mu ñaanal ñu yàlla def na ba tey jii Sénégal am na loi boo xam ni mooy xeex dox pour fii ci réew te loolu xam nañ ni que ñaanu sëriñ bi ñu ngi ci jàppale du nañ ci ñun avant même ñuy jug ci xeet sigaret moom ci boppam loolu daf ko doon tere moo tax tey vraiment ñu am mbégte bu baax pour ñëw euh, présenter loi bi jox ko sëriñ bi wan ni ko ko liñ doon wut si yàlla ñaanal yi yi mun defal yàlla dimbali nañu ba tey ji loi bi am nañ ko moo tax ñu ñëwoon tey pour présenter ko loi bi maa ngi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala nee mi ngi wax mbokk yépp di wax asalaamualeykum wa wa barakatuhu di ci jiital nag kilifa gi nga xam ne tey mooy Serigne Moustapha Gaye ñu di ko teeru fii tey ci Thiénaba fa tabarakallah comme ni Serigne ni ko Serigne Maodo Seck waxee ñu jaare ci moom. nee na nu jaare ci moom. ci turandoom. ci turandoom. te sëriñ Moustapha wax ni lu jiitu. wax ni lu jiitu. muy agsi di gis protocole muy agsi di gis ñi nga xam ne ñoo ko doon teeru fa tabaarakallaahu. mu am ci nee na amoon na mbégte lu jiitu loolu ndax ay téléphones yu mu doon jot ñu koy soññ ak di xaar ak di xool ci fu mu toll. yow sa présentation. nee na ñun itam présentation bi ñu def. doy na sëkk. nee na doy na sëkk. mënuñu cee tegaat dara. nee na mënuñu cee tegaat dara. xanaa wax leen ni rek. xanaa wax rek ni. sëriñ bi sëriñ bi. fekk ngeen ko fi. fekk ngeen ko fi. ndax ñii ngeen fi ndax ñii ngeen fi fekk. bu fekkoon sëriñ bi itam. su ngeen fi fekkoon sëriñ bi itam. moom ngeen di fekke ak moom. nee na fa tabaarakallaahu ñii ngeen di fekk ak sëriñ bi. ay kàddoom itam. nee na ay kàddoom itam. ñoo koy joxal. nee na ñun ñii fi nekk ñoo koy joxal. président ne ba ci président de la république comme ni ma ko waxee léegi rek. bu fi ñëwoon itam. bi mu fi ñëwee itam. njaboot gi la fi fekk. njaboot gi la fi fekk. ñoo ko dalal ñoo ko dalal. ñoo ko accueillir ñoo waxtaan ak moom. kon nee na kon kay. utale wuñ la ak moom. utale wuñ la it nag sa toogaay bi ak président de la république. ndax fii këru diine la. ndax fii kat këru diine la. këru teraanga la këru teraanga la. ku dul jullit sax. nee na ku ab jullit sax. bu fi wàccoon nee na su fi ñëwee. ñu dalal ko dinañ ko dalal. dinañ ko teral dinañ ko teral dinañ ko teeru. rawatina nee na rawatina. suñu mbokku jullit suñu mbokku jullit. moo xam ni moo xam ni. noo bokk nekk ay jullit. noo bokk nekk ay jullit. bokk réew mi bokk réew mi. bokk diine bokk diine. bokk deret bokk deret. bokk kóllëre itam bokk kóllëre itam. di dox seen diggante ak seen. bokkit lu nuy xeex te mooy li ngay dox. nga xamal ko sa bopp xam ni sëriñ bi nga xam ne moo sos pàkk bi bokk na ci réglement intérieur yooyu ma doon wax mooy ku ko mënta ñàkk def itam rëddu dëkkam bii na nga ko jéggal bañ ko fee def ndax bëggul loolu ngay wax dal njaboot gi nga lakk lakk sa bopp lakkaale ki nga dendal. lii nga xamante ni yéen a ngi jóg ko dox. nee na lii ngeen jóg di ko dox. sallallahu alayhi wa nee suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam muy yont yàlla Muhammad moo ko jëkk bañ nee na moo jëkk a bañ am tuxum cigarette ndax dafa wax ni ndax dafa min xusni islaamil mar'i min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bokk na ci li nga xam ne mooy rafetal jikkoy ab nit ku nite mooy lépp loo xam ni du ko jariñ dara mu bàyyi ko te tux du jariñ dara kon moo jiitu nee na kon loolu kooku moom yonent bi sallallahu wa sallam moo jiitu ci terenu ko ci terenu ko muy lu mel ni tux muy lu mel ni tux cigarette ak yu mel ni moom ak ya ca yu mel noonu te du nit te du jariñ nit ki dara te lu dul jariñ nit ki rek nee na te lu dul jariñ nit ki du ko yokk du ko yokk ko defee su ko defee waxuma yam ci ñàkk koo waxuma yam ci loola ñàkk koo dolli dara daf koy waaye daf koy wàññi. comme ni nga ko waxee. comme nii nga nu ko waxee ba mu leer naññ rek. Ah, fii ci dëkk bi itam. nee na fii nga xam ne mooy canaba itam. ki ko sanc ki ko sanc. muy maam Ahmadou Ndaak. muy maam Ahmadou Ndaak Seck. ni ngeen ko xamee. ni ngeen ko xamee. réew mi xamee ko ni. réew mi xamee ni. ñun ñii ci dëkk bii ñun ñii ci dëkk bii noonu lañ ko xamee. noonu lañ ko xamee. di ko wattandikoo noonu di ko wattandikoo noonu. di ko wattandikoo loo itam sunuy njaboot ndax alxuraan it loolu la ñu sant ndax alxuraan itam loolu la ñu sant. fegal leen seen bopp sawara. nee na dafa wax ni sawara na ngeen ko fegal seen bopp. ak seen ñoñ. waaye na ngeen ko fegal itam ñi nga xam ni yéen leen jabootee. ndax ndax musiba rek la leen di jural. ndax kat musiba ñàkk koo fegu musiba rek la ñuy euh, jural. kon lii bu ngeen jógee ñëw di kon kay fa tabaarakallaa su ngeen jógee ñu ne lan ngeen di dox ñu ne dañuy dox ci xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci tuxum cigarette. jëm si Thiénaba nee na ngeen ñëw nag ba war ngeen fee ñëw nee na fii nag dëkk bu ngeen war a ñëw la fii moom canaba. ndax fii di canaba. deesu ko fi jaay. deesu ko fi jaay. deesu ko fi jënde. deesu ko fi jënde. ndax lu nit di jënd. ndax lu nit di jënd. da dem fa mu am. da ngay dem fa mu am. fii nag fii nag. boutique du ko fi jaay na boutique du ko fi jaay. taabal du ko fi jaay. taabal du ko fi jaay. du ne ci ab ruqam. nee na kenn nit du nëbbuti ci ab ruq di ko fa jaay. di ko fa jaay di ko fa jaay. nu yëg ko nu yëg ko. di ko bàyyi di ko bàyyi noona. xale yi fi ne xale yi fi nekk sax. am na ci ñooñ. am na ci ñooñ. boo leen wanoon mégo cigarette. boo leen wanoon ab mégo cigarette. duñu xam lu mu daal ni ni lii lu mu doon ñooño du ñu xam lan la ci ñi ngi ci dëkk bi ñi ci gindiku ñi ci gindiku buñ ko foree suñ ko foree wala ñu seen ko wala ñu seen ko dañuy tiit dañuy tiit état bi sax état bi sax buñ fi yebal ay ay buñ fi yebal sax ñoo xamante ne ay élément la ci koor yi ñëw di di di saytu gàmmu yeeg yooyu xam nañ ni xam nañ ni sax cana ba bëgguñu loolu cana ba bëgguñu loolu ba dañuy sélectionné sax ñi ñuy yebal cana ba ba ministre de l'intérieur nee na ministre de l'intérieur sax daf koy wax ñu di ko dégg bu ñuy fay réunion nationale ci gàmmu nee na réunion nationale bi ñuy def ci ministère bu intérieur. da koy loolu daf koy wax ñu di ko dégg ah Thiénaba kat kenn du fa tux na ngeen wut ay éléments yoo xam ne du ñu jëfandikoo cigarette ngeen yóbbu leen Thiénaba. kon sunu maam ñu ngi koy dolli nee na kon kay suñu maam maam Ahmadou Ndaak Seck noo ngi koy dolli di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. toogul ba nëgë ni ndax kat toogul ba nëgë ni. mu soog di xam lii mu dem ba gis ay danger soog koo xam. dina ko tere dina ko tere. kon bëtam jël na kon bëtam ndekete jëloon na lii bu yàgg. àggoon na ci yonent bi àggoon na ci yonent bi. mu def ko royuwaay mu def ko royuwaay. wàcc ci sëriñam wàcc ci sëriñam. muy Cheikh na Ahmad Tidiane muy Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif. nga xam ni wax nañ ni nga xam ni wax nañ ni. cigarette ku koy tux cigarette ku koy tux. boo faatoo sax boo faatoo sax. ñu jubale la penku ñu jubale la penku. bu ñuy dëddu bu ñuy dëdd. ngay dëpp ngay dëpp. waxu nitu yàlla duy te nitu yàlla lu mu wax yàlla da ko cay fekk ndax du wax ay caaxaan. dégg naa ci benn nitu nee na moom mii dégg na ci benn nitu yàlla. mu wax ni mu wax ni. benn nitu yàlla essayé na cigarette. benn nitu yàlla essayé na cigarette. jël poon jël poon. ray benn si ndax. ray benn si ndax. wala mu fekk mu dee. wala mu fekk mu dee. mu def ko ci biiram mu def ko ci biiram. kaste ko kaste ko. gas gas. jubale ko penku jubale ko penku. ak ay seede. ak ay seede. ñu toog ab diir ñu toog ab diir. sulli ko ñu sulli ko. fekk mu dëpp fekk mu dëpp. féete saw fekk saw mu jublu saw. loolu yàlla nañ ci yàlla mu nee na loolu yàlla na sunu borom musal nu ci. kon loolu. nee na kon kay loolu. loraangeem loraangeem. yemul ci àdduna rek yemul ci àdduna rek. yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla nañ ci yàlla musal. muccal ci mboolem jullit ci mboolem jullit. kon li ngeen di dox nee na kon mission bii nga yor tey di ko dox. tànk yi yàlla gërëm nee na tànk la yu yàlla gërëm moo tax ñu lay nettali kilifa yu baax yi la jiitu woon. ci dox lu mel noonu nga xam ne kon tey mission bii mission la boo xam ni yàlla moo koy sédd nit ndax yàlla ngay liggéeyal fi mu nekk nii. nee na tànk yu yonent bi gërëm la. sallallahu alayhi wa sallam tànk yu sunu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane tànk yu sunu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane gërëm la. tànk yu maam tànk yu borom ëtt bii di maam Ahmadou Dak gërëm la kon message yi ngeen xam ne kon message yi nga xam ni. moom ngeen bëgg moom ngeen bëgg. ñu gën koo jot ñu gën koo jotali. ci nit ñi ci nit ñi. askan wi ci askan wi. ba ñu gën a xam ba ñu gën a xam. li muy lore lii loraange ci cigarette. ñu mën koo wattandiku nee na ñu mën koo wattandiku. incha allahu nee na incha allahu. fekk ngeen ñu ci ngeen ñu ci. waaye gën ngeen ñu waaye gën ngeen ñu cee ñaaxaat. dinañ ko dolli dinañ ci dolli. ci événement bu ñu mën di am bu ñu mën di ak télévision bu ñu mën di jot. bu soobee yàlla incha allahu. wax ji moom na wax ji. amma baadu asalaamualeykum ñu ngi leen di fayati ci fay bi nga xamee ne ñu teg ko ci fay bi nga xamee ne xalifa xalifa bi fay na leen ndax nun surgaam lañu rakkam lañu euh, taalibeem lañu kon nag mooy boroom kër gi moom ñun ñi suñ leen recevoirul woon it moom mu recevoir leen yéen vous êtes officiel waaw waxuma nag ba nga xamee ne moom sunu kilifa la fu mu jublu nun fa la jublu lu mu wax moom la ñu wax lu mu waxul nun waxuñ ko te toog nañ dégg ni mu leen recevoir recevoir na leen ak xol recevoir leen ak làmmañ xam naa li ci xol bi sax moo ëpp li ci làmmañ bi ndax lu ci bari su fekkee lu baax la làmmañ ba mënul génne lépp su fekkee lu bon la tam làmmañ bi mënul génne lépp kon moom ñun xam nañ ko xam nañ na muy recevoir ña nga xamee ne tabaarakallahu yéene na leen jàmm te ñuy ganam yéen nag gan yu wóor ngeen du ngeen gan sax fi ngeen dëkk fi ngeen dëkk bu baax a baax ku ci nekk rekk mën nañ ca mën naa mën nañoo wax waane nag li ñu indi li leen indi moom moo ñu soxal te sëriñ bi dugg na ci léegi muy affaire yi tabac te tabac dafa nekk ci loo xamee ni dafa nekk diggante dagan ak xaram ndax ba léegi mu fassiruun yi ñenn ñi nee nañ euh, daal ak comme xaraam biñ ko xaraamal xaraamul ñii nee nañ xaraam na waaw soo demee ci benn mu fassir mu nga naan wala tulqu bi bi aydiyakum tuhlika mu ne loolu tabaa moo tax ñu wax ko waaw tabaa moo tax ñu wax ko mu ne bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne da leen di alak te tabaa ku nekk xam na ne day alage premièrement day yàq sa santé que cancer yi ba ñu defee ay recherche ñi ëpp ñiy tux ñoo ëpp cancer soo demee can loolu wax nañ ko fa affirmer nañ ko confirmer nañ ko waaw ñii tey it day day yàq économie réew lu muy jariñ du du suural kenn ngelaw la du suural kenn waaw te nga koy jënd bés bu nekk yaa ngi koy jënd suba gu nekk yaa ngi koy employé ngoon gu nekk yaa ngi koy employé temps bu nekk yaa ngi koy employé di yàq sa économie di yàq sa santé te ñaar yooyu dafa nekk lu cher ci àdduna santé ak économie ñoo yore réew soo ko su ko réew ñàkkee rek ñàkk na lépp waaw am na sunu benn professeur bu mag boo xamee ne suñ ko tuddee ca keer suñ ko tuddee ca keer mu ngi mel ni nga tudd euh, nga tudd Cheikh Anta walla nga tudd koo xamee ni sëriñ bu mag la waaw kooka mu ngi tudd Mutawalli Shaarawi Mutawalli Shaarawi dañ doon def dañoo dem ba def ko ministre de l'éducation xaw moom euh, ministre des affaires religieuses waaw ndax wóolu guñ ko wóolu ci xam-xamam ak ci mën a topp yàllaam yooyu yëpp wane benn bés euh, euh, comme comme télévision bi dikk di di di ramasser yooyu bi bi muy ramasser nii ci nit ñi rek fekk moom mu ngi def nii cigarette di di ko tux waane boroom xam-xam yu keer yi rafetluwuñ ko ku mel ni imam Kishk nga xamee ne ba tangam na mu daan na muy na nga xamee ne noonu lay wootee noonu lay xutbaa ku ko xutbaawul kenn du la déglu moom moo créé loolu puisque tam nitu boroom xam-xam la waane keroog dafa dal dafa dal imam Shaarawi ni ko yow sa sa xam-xam bu réy bi xawma lu mu lay jariñ waaw loo xam ne dañuy wax naan araam naag dagan na yow ñépp di la xool ngay boroom xam-xam bu mag bu mag a mag a mag ñu gis la nga yor cigarette di ko tux yow daal na nga ragal yàlla na nga ragal yàlla na nga ragal yàlla waaw te yow tout le yaay wax ne alquran ifal la wala tafaal ifal wala tafaal ifal mooy jëfal wala tafaal bul def c'est-à-dire defal lu baax wala tafaal bàyyil lu bon yow bés bu ne yaa koy wax ci sa bi te lii nga xam ne dafa bon ñii ñu ngi koy xaraamal ñii ñu ngi koy sib ñi ko ñi koy daganal li dañ koo sib rek dañ koo sib de waane am na ñoo xam ne dañ koo xaraamal waaw te lépp loo xam ne dañ koo xaraamal dafa bokk ci li ñuy wax xalaal lu lu lu lu lu lépp loo xam ne dafa dagan ñu ngi koy boole ci xalaal te diina lool rek la xalaal wa xaraam waaw li ci diggante bi nag dafa nekk loo xamee lu jaxasoo la lu jaxasoo la kenn xamu ci dara waane nag sigaret bi Cheikh Ahmed Tidiane sunu sëriñ moo ko jëkk a moo ko jëkk a xaraamal moom ba mu koy xaraamal sax kenn xamul lu tax waaw yàgg na moo ko xaraamal waaw moo ko xaraamal bane ne euh, képp koo xam ne day tux ah xawma yaram wa de waane bopp ba du dugg àjjana waaw <laughs> kooku du musiba waaw ci Serigne Fallou euh, radiyallahu anhu Serigne Fallou Mbakke dem benn waay di ko laaj ne ko waaw euh, ndax cigarette dagan na wala xaraam na mu ne ko am nga ci benn mu ne ko waaw mu ne ko taalal mu taal di tux di tux di tux ba ci ba ci buu bi mu daal ne a ah, sëriñ bi kii kat mi ngi may bëgg a lakk mu ne ko ah soo ko bàyyiwul de loolu nga wax dina la ko def da lay lakk waaw soo bàyyiwul nii ay wakki mil rek mu ne a ah, kon daf may lakk mu ne ko mu ngoog yaa ko waxal sa bopp waaw kon nag ñoom ñépp ku ci nekk dajaloo na ñuy boroom xam-xam yooyu euh, moom moom moom waxuma sax waane tiijaan moom moom daf ko xaramal daf ko xaraamal ndax Cheikh Ahmad Tijaan moo ko xaramal yeneen tariqa itam xaraamal nañ ko xamoo ndax doo gis mukk seen sëriñ yi di tux doo gis mukk ku yiw ku yiw ku baax walla imaam di tux doo ko gis mukk waaw su ko defee xamal ne sa xam-xam des na wala sa ragal yàlla des na wala sa dox sharia des na tabaarakallah kon nun du ñu def lu dul ànd ci lii nga xamee ni moom la ñuy bëgg a def ci assemblée incha allahu dañ ci dañ ci dañ ciy taxaw bu baax waaw comme comme woote nañ ko ah waaw xanaa encouragé rek ak di kontaan ci président mi nga xamee ne euh, jaar na ci loxoom te muy kilifa gi su ko neexoon it bañ ko ne su ko waxoon ne bu ko kenn defit ah kenn du ko def waane moom it dafa xam ne lu baax la mu bàyyi assemblée ñu wote ko fa tabarakallahu ña ko wote it di nekk ci assemblée ñooñu it ñu ngi leen di encourager di kontaan ci ñoom di leen ñaanal yàlla ministre de la santé it moom mi nga xam ne mooy envoyé yëpp jaar ci loxoom ah mu koy jaarale ci kër kër yu mag yi moom tam ñu ngi koy encouragé bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla gën koo jàppale bi jaay rasulillah yéen ñii nga xam ne yéen def délégation tam ñëw fii ci kër gi ngeen xam ne fii seen kër la fii këru diine la ngeen xam ko eh, ñëw fi kon monsieur Gaye ñu ngi kontaan bu baax ak monsieur Faye monsieur Sall monsieur Wele sunu sëriñ fa tabarakallah ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ak soxna ñang inchaa allahu inchaa allahu dinañ ci def sax xutba xutba ko inchaa allah dinaa ci bindu xutba inchaa allahu ñu ñu waaw ci ndigalal sëriñ bi waaw inchaa allahu ci ndigalam waaw suñu joxee ndigal rek incha allah dinañ ci def xutba taxaw ci minbar bi xutba ko ñëpp dégg incha allah waaw ah <laughs> ak mbooloo itam dinañ koy waxtaanee incha allah yal na yàlla dolli sutura yi yal na fi yàlla dolli jàmm eh, ndax lii ngeen di dox jàmm rek la ku wér ah sa économie wér yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm yal na ko yàlla def bi jaahi rasulillah alayhi salaatu wa salaam tabaarakallah kontaan nañ bu baax. wasa sa kii wala boog mu nekk sa chef puisque di nga dem ba nga xam ne mooy sa chef mu waaw dootoo mën a toog sans walla kii soo demee ba miin ko mu nekk euh, phénomène d'accoutumance li ñuy wax phénomène d'accoutumance waaw soo ci yeggee fa tabaarakallaahu kooku danger bu mag la waaw yàlla bu ci kenn yegg yàlla bu ci kenn yegg boobu lañ koy tere waaw tabaarakallaahu hmm.